Sonko nu mu def nii nekk ci terrain bi dem di def massifi massification dem di ay militant bu mu ko calculer ñoom nañ def seen bopp ne Macky du def troisième mandat ñoom ñu dem gérer seen yëf dem dem sur le terrain batterie campagne wala dem dajeex askan bi mais ñu bu fekkee ñoom ñooy alimenter à chaque fois euh, euh, ñëw troisième mandat troisième ñu ngi perte seen temps de ñu ngi perte seen temps dem leen sur le terrain. est-ce que Macky nekkul di préparer Macky li nekk si boppam moo ko xam bàyyi nañ ko bàyyi li nekk si boppam. est-ce que nekkul di préparer te candidat am ñu ngi koy gis nag malheureusement ñu koy gis tous les jours. nañ xoola droit am na nañ ko bàyyi mu nekk li si boppam mu def moo xam ñoom ñu def li nga xam ne moo nekk seen bopp ñu ne Macky du def troisième mandat et puis ñu dem sur le terrain battre campagne coow li daal di jeex en attendant 2024 ñëw may nuyu bu baax suñu euh, mbokki mool yax ñi nga xam ne ñoo nekk si transport en commun yi euh, di ñu di di ñu teewlu démb maa ngi doon wax sànq démb maa ngi ko doon wax nga xam ne ñu ngi ko doon wax ci euh, Ouest Foire le gars bu UCG. waaw UCG ñëw nañ pare ñëw nañ ci démb fekk ñu ma fi woo nañ ma jotuñu ma le gars maa ngi lay nuyu bu baax Mbeng précision ah dama ne waxuma ne seen camion du fa ñëw waxuma du fa ñëw dama ne. li gën a rafet rafetul ñuy gis mbalit mi ñu koy jàll foofu xam nga camion bu ñëwee dafay tondi mbalit mi. Hmm. même bu fekkee mu fay jaar mbalit maa nga sa pot lampe bi. dama ne ay bac à ordure bu ñu leen ko fa mën a tegal ñu fi sotti mbalit mi loolu ça ne veut pas dire que camion bi du ñëw. camion bi mi ngi ñëw di jël mba mbalit mi loolu wax waxuñu loolu après dama a sax mairie bi bu mënee may ay bac à ordure ñu mën koo teg foofu si euh, koñ xandaar ak si marché bi. nga ne ba nga nga maam non ramassage hors du xam UCG ma ne ok ñoom ñoo UCG moo war a tonni mbalit mi loolu loolu kenn ñëpp xam nañ ko mais dama maire mën na maye ay bakka hors du lu yomb la. mu gën leen yombalal moo la gën a yomb dañ leen koy may ñu teg ko foofu. Hmm. du seen yëf ok mais dañ leen koy may parce que su commune la. Hmm. UCG bu leen ko fa mën a tegal tamit baax na. mais waxuma ne camion bi di romb dina romb yéen a ngi tonni mbalit bi yéen a ngi def liggéey bu rafet waa UCG ok loolu naa disconvient pas mais nag. mbalit ma ni ñu koy jàllee ci poto lampe bi moo ñaaw dégg leen fa Paul euh, lu mbarit comme te wax ma bakaaw bi Paul lu mbarit Paul lu ma dégg nañ ñu fay tuur mbalit mi délégation nañ def pour waaw dégg ngeen ma mais waaw waaw mais mais maam est-ce que est-ce que tamit ñi nekk côté boobu secteur boobu ñu mënuñu cotiser ou peut-être wut seen i bac à ordures c'est vrai mais en attendant que non mais en attendant que ñoom ñu ñu euh, waa UCG di wut solution di leen ko fa tegal ñoom nañu du def seen cotisation ku ne benn kër gu ne boo duggee cinq cent cinq cent entre autres mën nañ am ay bac à ordures aussi seulement parce que recevoir ay locataires fa dëkk kër yi dafay xat mënoo fee bàyyi sa mbalit 24 heures wala 48 heures dafay xëy ci obligé nga génne ko ah. boo génnee foo koy teg amoo foo ko tuur benn potolam bu fa nekk ngay romb daal di ko fay jàll rafetul loolu côté boobu la ñu waxee mais pas que yéen def leen seen liggéey waa UCC yéen a ngi liggéey am solo félicitation dégg ngeen marché central bu tëngee jaaykat yi démb seen yóbbante bi cinq minutes moo ma dese ok après deux minutes moo may dese après léegi marché central bu tëngee jaaykat yi nga xam ne ñooy waa taaba taaba yi dañu ma yóbbante si Omar Cissé monsieur le maire ñu ngi lay nuyu bu baax nee nañu nga dimbali leen parce que ay borom kër lañu ay kilifa lañu seen njaay moom lañu yaakaar ni ñu leen fay yëkkatee parce que saa boo demee yaa ngi fekk auto police bi ticket baa ngi taxaw ñu ne kenn du falal ñoom nag ñu ne bëgg nañ toog moom waxtaan moom bu dee mën na leen may yenn heures yi ñu lal buñ paree heure boobu passé ñuy quitté seen marchandise daal di dem loolu dina leen gënal waxtaan la rek yow ak ña nga xam ne yaa fa nekk te aménagiste la monsieur le maire xam naa ne nag aménagiste moom peut-être loolu dana xaw a jafe. conseil euh, municipal ah. doo conseil municipal man la waaw woo leen. waaw conseil la man mais commune bu Ouest laa bokk. <laughs> ñu koy door ak yéen kaay groupe des médias la tribune euh, moom nag tribune dafa euh, ñëw ci li nga xam ne moom la ñu doon sànq biir APR dafa mel ni crise de femme coow li bari na lool ci biir APR. waaw coow li bari na gaa ñaa ngay mer di ngembu parce que ne wàcc si arène bi alors gis nañ nag de Touré moom moo njëkk a wane boppam gannaaw nag ba mu fippoo wane boppam ci biir APR moom xam na leen ne génnul APR Bokk Yaakaar. waaye nag seen doxalin bu bopp si boppam dootu ci ànd ak ñoom lu dul dafa gis ne intérêt askan wi la Abdoulaye Touré moom moo gisee noonu ñu gis Abdoulaye Diouf Sarr lancé am ñu gis ne moom it dana na nam naa topp si tànku euh, Aminata Touré moom it wane boppam doon frustré en tout cas lu mu ci man di doon nee na ñu yëngal na biir euh, APR leneen lu nga xam ne APR war nañu jàkkaarloo moom moo di euh, mbay mi nga xam ne soo moytuwul ren ji dara du ca baax. loolu itam faw ñu jëm ko défendre njëkki cher yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy dundee jéggi na dayo ñu gis na nag uh, Benno Bokk Yaakaar ak biir APR dafa mel ni fa dëgg neex yàlla ñu ngi toll ci safax huit ans c'était pour une durée bien déterminée bennoo gi dafa mel ni uh, jëm na ci tas mu uh, me jamono joojee nag askan wi wax fa dëgg ñoom dafa mel ni dañu leen fàtte politique 365 jours sur 365 réewum Sénégal bés bu yàlla sax boo yeewoo politique ngay wax ba di ngay tëddee rawatina quotidien yeex journaliste yi édition boo génne reportage teenee sa daanaka kenn defatu boo waxte waxoo politique dafa mel ni waxoo dara 365 jours sur 365 jours ñu ngay politique jamono jooju askan wi ñu ngi ci ay jafe-jafe njëkk yi cher na euh, fourniture yi cher na courant bi cher na euh, ndékki añ reer nekk jafe-jafe ci góorgóorlu yi ay jafe-jafe yu dul jeex ñu ngi ko enn location yooyu yëpp ñu ñuy bëgg a reex wàllu politique yéen bi nee na nag fu mu nekk askan wi euh, ñoom ñëpp politiciens dañ leen wan ginnaaw loolu nag doy na waar nañ ko xoolaat bu baax rentrée scolaire bi gis nañu ko fu mu nekk ni jànq ji xam nga da bay ko tëjee ña nekk mii na daan doole yi nekk ci dëkk kaw gi dañuy ñëw dañuy jàng nag foofu ci dëkk kaw gi mais dañuy ñëw bu ñëwee profité aussi euh, euh, euh, nekk ay mbindaan liggéey nekk ay mii na daan doole pour ñu lu am luñ jëndee fourniture bu école ci jaaxe yére fu mu nekk ñoom ñëpp dem nañu dem nañu nag pour nga am jànk ci kër yi jafe na lool boo génnu cinquante mille soixante mille wala soixante dix mille par mois yaakaar naa ne doo am euh, euh, jànk yéen kaay bii ñëw ci la nga xam ne barke démb rek ñu ngi ko doon wax ñaxtu hémodialysé yi xam ne ñoom la ñu yóbbu ci hangar bi ñàkkum ndox ci boppam la ñuy jooy foofe looloo taxoon ñu baare circulation bi ñoom hémodialysé yi nee nañ hangar ba amul ndox Pala Samb def lu am solo sa Fann Point E lépp ba tey rek ci yéen kaay groupe des médias di tribune Pala Samb maire bu commune Fann Point E na képp nga xam ne danga faa wonnu lool 3 minutes moo ma dese. Mhm. képp nga xam ne da ngaa won lool ah, ca commune ba ba ni ngay muccee commune bi moo lay jël en charge. Euh, commune moo lay en charge ni nga won nee lool ba ni ngay muccee félicitations par l'Assemblée lool lu rafet la. troisième mandat yi nañ dañ politiciens politiciens ñoo ñu war a dimbali ci wàllu troisième mandat et puis dañu avancé def focus ci li ci leneen quoi ah syndicaliste yu euh, euh, licenciement Sen'Eau ak Expresso Euh, syndicalistes yi nag fu mu nekk nii ñoom takk na lu taxaw de nee nañ du yomb de du yomb de defante bi moom wax fa dëgg ñu ngi koy xaar le témoin dafa ñëw ci Ousmane euh, Sonko département bu Mbour jamono ji nemmeeku tuur bi de gaa ñu takk day fu mu teg tànkam ñoom ñu teg fa seen ab tànk dañu koy surveiller comme meew bu ñu teg ci taal Ousmane Sonko euh, nemmeeku tuuram foofee nga xam ne moo di sa mbuur ñu jàll ci ay Aïda Ndiong ba nga xam ne fu mu nekk nii ay Aïda Ndiong ma ay dara moom lañ daan owee mille milliards yàgg ko mbapat gannaaw ba ko euh, ba ñu ko tëjee woon ba tijji ko moom nag fu mu nekk nii moom président Macky Sall jàppal tànk ba fës ki pare nag jàkkaarloo ki nga xam ne moo di Aminata Touré yéenekaay bi euh, dikk na ci ñu jàll ci source a dafa euh, ñëw ci euh, les clés euh, portées disparues lu am solo mu ñëw ci kër ya nga xam ne ay appartement la F4 yi nga xam ne dañ ko mayoon sunu gaynde yi sunu gaynde yu jigéen yi ci basket afro basket 2015 Yaoundé ba fii nag mënuñoo jot appartement yi seeni caat mënuñu ko jot sept ans après ani lu waral coow li fu caabi yi féete yéen bi dikk na ci les échos ñëw ci Sadio Mané ba nga xam ne démb statut sénégalais yëpp boo fa demee Sadio Mané dafay gis de classé kon deuxième ballon d'or 2017 premier lauréat de l'histoire du trophée euh, euh, Sokrat Sadio Mané fu mu nekk nii mooy sunu fierté fierté Afrique bi yëpp la fierté mboolem kuy deer bu ñuul fu mu nekk nii Sadio Mané wax fa dëgg neex yàlla da nga koy ndamoo nag. Mhm. ku am lu baax danga koy ndamoo. Euh, kii nag moom wax fa dëgg mooy sunu mbégte jamono ji Les ko dafa ñëw ci euh, coowal ajaa Adja caare jaw ma nga xam ne moom it procureur de euh, am na benn vise mu ngi koy teg bët ba léegi ndax mandat de dépôt euh, mu nga mu ngi caaw ndoddam soo moytuwul ndax coups et blessure moom it manees nañu ko ko euh, toppee tension bi nga xam ne am na ci Petite Côte maanaam Mbour gendarmerie bari nañ fa lool la ko waral moo di tourné ne meeku tour bu nga xam ne moo di Ousmane Sonko yéene kaay bi dikk na ci ñu jàll ba tey ci les masques vont tomber wala les masques tombent nguuda mbuub Euh, ñëpp jot nañu xibaar bi léegi moom bokk na ci waa PASTEF euh, donc moom dugal nañu ko euh, ci li nga xam ne rek moom mooy autorité de régulation du parti moom la ñu fa teg moom Ngouda Mboup jamono joojee ñu gis ne kon l'expertise et l'engagement politique ne font pas bon ménage boroom xam-xam yi nga xam ne seen xalaat dañu ko doon doyloo bu ñu daan wax ci plateau yi tey jii ñu si bëri si ñoom jàppale ne kon ña nga ci arène politique bi nguuda mbub la ñu andi nataalam waaye bu le ministre Ismaïla Madior donc euh, loolu lu am solo jox leen di liggéey benn direction bu ko Badou Diack ndaw la sa tëngee ah tam leen la ñun waa tëngee moom fu suñu bopp waaw félicitation monsieur le ministre ni nga li nga def ba du jàkk loolu d'accord nañ ci waaw direction bu am solo nga ko jox bee boo Amina Touré sama xarit la Amina Touré ma lay nuyu baax Mimi Touré le vrai journal dafa ñëw ci ñi nga xam ne fu mu nekk mooy équipe bu baax bi ñu teg ngir jà ngir nag mën a défendre troisième mandat bi ñu doon wax sànq équipe baa ngoog Euh, gis ngeen leen euh, ñi nga xam ne ñoom la tànn classement bi ñu taxaw nii Adja Ndonga ngi si Racine euh, kii di Cheikh Kanté Mambé ay Aïssata Tall Sall ñoom ñoom ña nga ca fu mu ne Cheikh Omarane waaw ñoom ñoom ñu ngi ci fu mu nekk nii bee boo ngeen xaar leen de fan yii dinañ <laughs> wàcc si plateau télé yi <laughs> ngir nag défendre troisième mandat bi ma jeexaleex anamu grand grand place ak coowal Dakar dem dig bi jàppale ne kon euh, kii nga xam ne moo di euh, directeur bu nga xam ne moo moom moom la ñu fi jëlee andi na ay leeral andi na ay leeral euh, Yacine boo gisee Dakar dem dig fii rek. Dakar dama juum grand place. Ah. grand place anam sànq rek gisoon naa voilà. ndekete gaañ yi Omar Boun xataat Silla mii de gaañ yi la mu doon liggéey ci biir dañ koo xamul dañ koo umpale moo tax ñu si bëri doon daal ci kawam. ndax na ba muy ñëw ci kër ga jàpp na ne euh, déjà kër ga siège bi tax ko woon demee noonu tur rek la woon fekk nañu jaay benn parti bi moom ci boppam ak si ndimbaluk nguuru Sénégal fexe na ba daal di ñu tabax étage bi léegi si cinq niveau la war a nekk ñu ngi ci quatrième bi donc centième la bu nga xam ne ni moom moo ko euh, démarré ñu ne euh, déetawaay ba muy ñëw nee na parking boobu nga xam ne moom lañ doon bàkk génn wàll génn dafa paanoon donc moom ci boppam moo nekk ci commande mille quatre cent bus yu nga xam ne ni daanaka yëgsi na ba noppi loolu commande bi

fa fekk donc quatre-vingts millions la fekk ci kees yi donc cent milliards yi mooy bor quatre-vingts la fu fekk ci euh, kees yi Dakar Dem Dikk nee nañ déficitaire du quarante millions la doon perte par jour euh, euh, benn milliard par mois douze milliards par at donc moom ci boppam loolu la fekk li nga xam ne moom mooy euh, ca ca kër ga moom ci boppam ba muy dem euh, jotul communiqué ci 1400 bus yi nga xam ne daanaka yëg si na euh, moom Omar Bun Khattab Silla li ma koy ŋàññi rek mooy pourquoi communiqué woo pourquoi communiqué woo mais non parce que boo defee li ngay def moom moo génn nii du moom moo génn nii mais fekk nañu jël mais membre membre membre kaay heure na bus ya mu joxe fële pare ba lan la kon heure bi jot na après après nga xool. aywa commande mille commande commande Yacine. cent bus la xel mënut a nangu. cent. la passation de service.